dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu xëy ci réew mi te déggoo fi ñu ne rey nañu fi nit maanaam lu jafe la fii ci Sénégal maanaam rey la ak naan ci ndaal yi moom la ñu yemale dañoo yor ab société boo xam ne bu soxor soxor la ci xëlim ak Assane Samb daan nay wax ne bërki démboo njaaye am na benn waay boo xam ne dafa wax jabaram na ko bul génn kër gi ca diwaanu Pikine ginnaaw bi jabar ji génnee bi mu ñëwee ay paaka la ko jamante ba maara détaal yi fii ci Sénégal saa sunu xëyee da nga dégg ñu ne rey nañu fi nit wala ñu ne fi blessé nañ fi nit wala ñu ne toroxal nañu fi nit maanaam violence physique bi nekk ci réew mi jéggi na dayoo ak violence verbale bi journal bi nee na fii ci réewum Sénégal soxor nañ genn xeetu soxor goo xam ne maana day taali mën na lay gis nga yéenante wuñ jàmm yéen kaay gi tamit nee na ci biir bërëbu jàngukaay yi foofee sax dañu fay fekk ay mbir yoo xam ne mbir yu doy waar doy waar la Assane Samb nee na société bii nga xam ne mooy sunu société bi jamono jii jot nañu daal di koy waxtaane waat ndax li nga xam ne moo xew mi doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne jéggi na dayoo yéen kaay gi di Walf Fadjri wax ci lu jëm ci wàllum njëg yi nga xam ne jamono ji dafa yokk ba maana day taali gouvernement bu Sénégal ñoom nag nee nañu dinañu ko jéem a lijjante waaye nag yoon wii nga xam ne moom la ñu awa du yoon lijjanti ko yéene kaay gi dalee ko xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak waa mairie bu Ziguinchor doon nañu amal lancement du fonds de cinq milliards pour l'économie sociale et solidaire Ousmane Sonko daat nay jënd li nga xam ne mooy ay oto mbalit ci turu mairie bi waaye tamit daan nay ñaax ñi nga xam ne ñooy ndawi Ziguinchor yi ñu daal di liggéey nee na leen mairie bi maanaam nag du ay nit ñooy jóge ci asamaan si ñëw defaral ñu ko ñun ñi nga xam ne maanaam fi fekk baax du ay doomu Ziguinchor ñun ñoo ko mën a defara Ousmane Sonko wax na xale yu góor mel ni midi nee na kenn ku nekk bay boo nga jël sa loxo dugal si sa poos daal di génn aw weccet ñu daal di koy boole mën a liggéey Ziguinchor journal bi di 24 heures nee na Ousmane Sonko lu toll si juróomi milliards la soxla ngir liggéey Ziguinchor ba am na booy waaye nag moom Ousmane Sonko menacé na ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur wa ci mairie bi nee leen képp koo xam ne détourné nga fi xaalis maanaam sàcc nga fi alalu mairie bi danañu la yóbbu fa mbaxana doone benn maanaam sonoon cinquante mille francs sax la danañu la yóbbu yoon yéene kaay gi di ci lu jëm ci mbiri amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall Thierno Alassane Sall nee na jamono jii nag maanaam wàllum politique dañu ko waroon a tegee na le jublu nag ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal amee yéene kaay kay de la Tribune nee na Karim Wade mi ñuy wax ne moom la ñuy amnistie moom jamono ji bëggul ku ko amnistie maanaam sax dàqul jóge ci parti bii di PDS yéene kaay gi di Direct News xale yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar fare ca diwaanu Bambey ñoom nag nee nañu gouvernement bu yees bi amul benn cadre bu dëkk Bambey bu ci bokk moo tax ñoom mer nañ ba mara détail yéene kaay ñu koy fekk fa journaliste Bakary Domingo Mané maanaam lu mu yëkkul yenn ci journaliste yi daf ko fàtteen ndax nee na fii ci presse bi bëri na ci nag ñoo xam ne maanaam dañu leen di gere pare nañu nag pour développer ndax nit ki soo ko gere nag kooke nag maanaam jombutu da dara moom Bakary Domingo Mané nee na bëri na dañu leen di gere maanaam ñu xëy bind li ñuy bind xëy di xaar ngoon gi ñu daal di koy xaar te nee na loolee lu dangereux la ndax nee na fii ci xam ne dañu leen di binduloo te loole nag maanaam musiba ma bu kumbalay jura yéen a xëy na wax ci lu jëm ci wàllum jën maanaam jën jamono ji mën nañoo wax ne doom ji góor la bëri ñoo xam ne ne tegutuñu ko bët ñi ko jot a teg bët la ñu koy jënde cher na ba jéggi dayoo loole moo tax ñi nga xam ne ñooy acteurs yi di ci liggéey ñoo ngi jàmbat yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi démb la woon ubbite école bi ci jàngalekat yi waaye bëri na ci ay école yoo xam ne ci banlieue bi maanaam picc nekku fa ubbi tey jàng tey gi nga xam ne moom la ñuy wax bëri na ci ay xelu jàngalekat yoo xam ne maanaam tey na si ndax jàngalekat yi ñoo ngi laaj li nga xam ne mooy fonds de yi yéen kaay gi di la Réveil na ci Sénégal bëri na ci ay école yoo xam ne ndox maa nga fay jaaba jonge googee fu ci mel ni ci Ndakaaru bëri na ci école yoo xam ne dafa fees dell kom ndox waaye nag ci diwaanu Kaolack foofee tamit bëri na fa école yoo xam ne ndox maa nga fa ci diwaanu Kolda ba sa diwaanu Ziguinchor yéen i kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan université yi ji yëngu na ndax mboolem université yi nga xam ne ndax mboolem université yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal danañu gerew gerew ñaari fana yéen i kaay gi di L'As xëy wax ci coup d'état yi nga xam ne dafa daal di takkarnaase ci déndu Afrique yi nga xam ne ci Afrique amuñu benn sécurité ci la yéen i kaay gi ñëw ci sous bi kaay gi dee sar xëy di ñu xibaar naan ñu Kalidou Koulibaly jamono ji maanaam jar nañu daal di si jóg ndax ay mbiram ma ngi gëll góose sa diwaanu Chelsea Kalidou Koulibaly jamono ji moom mooy damm bank bi